asalaamaaleykum suñu mbokk internet daleen ak jàmm ci seen émission actu campagne fii si seen chaîne Evidence TV ñu fas ni ci ànd ak suñu mbokk journaliste di Abdourahmane si ak Clarisse Mantan Abdourahmane maa ngi lay nuyu. Ndiaye maa ngi leen fay di la ziar di la bëggee si bi. di ziar Clarisse di ziar suñu mbokk internet di leen wax daleen ak jàmm sur seen chaîne EVTV. alors Clarisse noo def. Ndiaye maa ngi si jàmm. maa ngi lay nuyu di nuyuwaale Abdourahmane mhm. euh, tey euh, ci suñu émission on va parler des cinq candidates euh, du moins candidats que sont euh, Anta Babacar Ngom bu ARC Amadou Ba di candidat Benno Bokk Yaakaar Idrissa Seck bu euh, parti mii ak ki nga xamante ni mooy Boubacar Kama Camara mujjee ko ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Diomaye Diakhar Faye di bu coalition Diomaye 2024 alors ñu doore ko ak ki nga xamante ni moom mooy l'unique candidate on peut dire de l'élection présidentielle 2024 muy Anta Babacar Ngom di candidate bu ARC demoon fële nga xamante ni moom mooy diggante Almadi Ngor ak Mami mel ñu suivre élément boobee ak suñu waa régie. salaamaaleykum mbokk yi tey damay ñëw ci ni ma nar a saafaralee dund gu seer gi ci Sénégal boroom kër yi sonn nañu jigéen ñi di dem marché jaaxle nañu surtout nag ci weeru koor gi ñu nekk marché njëgu dugg bi kenn mënatu koo laal kilo ceeb a ngi ci téeméeri dërëm litre diwlin ñetti téeméeri dërëm paketu suukar ñaat téeméer te suukar waroon na mën a yomb fii ci biir Sénégal waaye ay nit teg ci seen loxo ba kenn du ko laal ndawal gi seer na jën bu baax sax léegi boo ko bëggee am bitim réew lay jóge mbokk yi boo leen ma dénkee seen kóolute incha allah am na solution ba dootuñu jéggaani lu ñuy dundee autosuffisance alimentaire souveraineté alimentaire sécurité alimentaire muy bay dundee te dundee lu ñuy bay lu mën a nekk la dina ànd ak baykat yi ñu sukkali mbay mi dinañu leen former indi ay doxalin yu bees ba pare financer leen ñu def ay pm e agricole régler problème mu ndox mi engrais semence matériel agricole ak suuf li ko dalee vallée du fleuve Sénégal Ferlo Bawol ak Sine Saloum zone des Niayes ba Casamance fas naa fi yéene taxawal deux cent cinquante mille fermes agricole jàppale baykat yi jàngal leen agrobusiness ñuy bay noor ak nawet chaîne de valeur mbay mi rekk dinañ ci wutal xëy lu ëpp un million de jeunes ak ay jigéen ci càmm gi dinañ leen dooleel ànd ci ak sama mbokki sàmmkat yi dugal ay race yu bees yu am doole yombal aliment ak xont loolu sama spécialité la dina jàppale yarkatu ginaar yi bu baax ci fépp ci biir Sénégal ñu taxawal ay ferme avicole ak i abattoir yu moderne yàpp nen ak meew dina bëri te yomb càmm gi rekk dinañ fa créer trois cent mille emplois yu bees waa mbokk yi il faut que ñu nangu suñu géej gi ci loxo yi ñi nga xam te ñu ngi koy yàq nee naa sama mbokk mool yi get Ndar ba Kayaar Mbuur ba Cap Skirring dinañu suspendre les licences de pêche ba nga xam ne géej gi dina mën a meññaat ma jàppale sama mbokk mool yi ci formation ci financement ci gaal yu bees ay moteur gilet GPS quai de pêche yu ñu équipé ak ay espace de stockage yu doy sénégalais il faut que ñu delloo leen lekk si jën ju baax te yomb pêche artisanale bëgg naa fa taxawal deux cent cinquante mille emplois yu bees bu ma taxawalee lii yépp nag dama koy boole ak ay usine de transformation di def agro alimentaire bu ñu fàtte ne man industrialisation laa wax su ma faloo bëgg naa jigéen ji mën a yóbbu 1000 francs marché mun cee dundal njabootam Sénégal nañu dëggal suñu bopp ñuy bay Abdourahmane ban commentaire ngay def ci lii Anta Babacar Ngom daal di wax. waaw Ndiaye Anta Babacar Ngom li muy wax li mu mujjee wax lay mhm. tàmbalee mooy industria industrialisation. Mhm. parce que boo xoolee Anta Babacar Ngom si domaine boobu laa gis ne ci la gën a xarañ en fait. Mhm. parce que boo xoolee papaam mi ñuy wax Babacar Ngom. moom moo yor l' industrie avicole au Sénégal. ñoom wàllum ginaar la ñuy yëngu en maam domaine boobu moom je parfaitement d' accord que ne bis bu faloo woon président dinañ ko mën a développer. Mhm. maanaam c' est à dire nit boo gis am na si loo xamante ne si loolu la gën a xarañ en fait. Mhm. ñoom seen domaine loolu agriculture la moo tax côté boobu moom nangul naa ko. Mhm. mais Sénégal boo xoolee dafa bëri ay réalité yoo xamante ni maanaam maanaam politiciens yi ñoom cerner wuñ ko carrément quoi en parce que maanaam mënoo yor benn. industrie avicole rek foog ne suñ la joxee réew mi mën nga changer lépp lépp. waaw mhm. cest lool boo ko waxee it mën nañu wax ne peut-être que sa programme loolu nga ci bind. en fait mais en réalité. Mhm. ah maam li nga xamante ni mooy li ñuy dund ak ni souffrance yi am ci dëkk bi ak maam coono yi askan bi fu mu toll. mën nga bind programme accès ko ci benn côté. Mhm. mais ñëw gis ne kon dina am difficulté pour nga réaliser ko. li ma gëm daal mooy que ne. ferme maam industrialisation bi. côté aviculture loolu moom ça sera réalisable. pour Anta Babacar Ngom. waaw ndax ñoom ñoo ko démocratiser on peut dire au Sénégal voilà man foofu accepté naa ko. Mhm. mais nag quant à de la pêche. de mhm. l' moom gëm naa ne bu ñu ñëwee dinañ fi fekk loo xamante ni pour ñu. génn ko ci lu mu nekk yóbbu ko ci beneen level dina jafe. parce que déjà rek boo xoolee pêche bi. Mhm. problème bi ci nekk dafa grave dafa sérieux mhm. yaa ngi dégg ay licence de pêche yoo am doo xam mhm. tax na suñu pêcheur artisanal yi. Uh-huh. daanaka dem au chômage. ndaw yu bari di jël gaal yi. kon loolu problème majeur la fii si mi ba nga xamante nit bu nit maam candidat bu ñëw. te si discours dinañ la déglu si côté boobu. mais duñ mën a gëm ne boo duñ ko changé comme ni ñu koy waxee. waaw tant que wanoo ñu ko bañ gis ko. côté boobu euh, man loolu laa fa gis. Hmm. donc ma la tamit ñu ñëw ci côté boobu wàllum pêche bi. Mhm. ñu seetlu rek ñi muy wax xale yi ñoom ñooy jël li nga xam ne wàllum géej bi daal di dem. te ña leen nekk sax ñi nga xam ne duñ mooy convoyeur ñi leen di yóbbu. Mhm. pêcheur lañuy faral di nekk. damay pêcheur lañ. maam saa mhm. les pêcheurs defoon nañ fi benn reportage wax loolu. ne naan quand les pêcheurs se sont transformés en en euh, immigrant irrégulier maanaam mhm. c'est-à-dire parce que léegi pêcheurs yi dañoo gis ne pêche bi mhm. doxatul pêche artisanale bi surtout parce que mhm. dafa am les bateaux de pêche industrielle yi nga xamante ni la majeure partie ñu koy ñu koy ñu koy yor duñ ay sénégalais étrangers lañ yaa ngi dégg te ñoom seen puissance de pêche toll na foo xamante dañuy dañuy muucu géej bi daal ah. léegi loolu par exemple moo tax soo demee comme tey par exemple yu mel ni Bargny ndaw yëpp jël nañ gaal yi dem si gaal mhm, mhm, la mhm. majeure partie des anciens pêcheurs yu dëkkoon baal ñu si bëri ñuy def na immigration irrégulière bu yàgg parce que gis nañ ne pêche bi doxtul kon loolu benn problème majeur la fi si Sénégal yaa ngi dégg agriculture bi muy wax tamit développé ko dina jafe parce que dafa am réalité yoo xamante ne déjà daf fi nekk parce que boo xoolee Sénégal bayum gerte rek nga fi dégg. Mhm, waaw ay dégg. waaw mhm. ah, yeneen yeneen yeneen yëpp moom. second plan la nekk gerte mhm. daal chaque jour ba chaque chaque chaque chaque nawet daal li ngay gën a dégg ñu naan la commercialisation de l'arachide ngay gën a dégg. te fii te tamit mu doon dëkk boo xamante ne euh, ceeb bi. mbayum ceeb lañuy gën a mën a. pourtant ceeb bi sax moom la ñuy dundee ah, waaw dëgg pourtant pourtant Macky Sall moo fi waxoon autosuffisance à mais malheureusement. Mhm. ba léegi loolu amul. Mhm. en fait yaa ngi dégg. donc egg nañ ci benn sommet egg nañ ci benn fu sori waaye ba léegi amul. de ce fait pour nga ñëw. Mm. maam secteur agriculture bi nga développé ko comme ni nga koy waxee nii rek maam du yomb dina am lu bari lu mu laaj. Mm. mais nag espérons que ne. Mm-hmm. discours am bi muy tenir nii. en fait mm-hmm. dina si am lu mu si réaliser man lu ma si gën a amal solo. Mm-hmm. mooy quand parle de réduire le coût de la vie. parce que loolu moom je me prochain président du Sénégal loolu mooy war a nekk première tâche am. mooy ba dund bi wàññeeku. parce que actuellement bu jotee balaa ñoo ndogu tey ñu dee. parce que gi. dafa maam nekk fi laay wax. parce que produit waaw noonu la fa demee ba pare mm-hmm. produit dañu cher. de ce fait loolu daal xam naa ne. bokk na si point yi nga xamante ni moom. Mm-hmm. ku ci falu di nga ci góorgóorlu waaye. du yomb. ndax dëkk boo xamante ni la la majeure partie des produits consommables. Mhm. extérieur lay jugee. d' accord dégg mhm. boo buggee ne damay réduire le coût de la vie. kon di nga mhm. teg ay stratégies yoo xamante ni dinañ xarañ lool pour mën koo réaliser en fait. d' euh, Clarisse ci prétexte boobu sax la dugg daal di waxtaan ci li nga xamante mooy coût de vie. dafa cher loolu Dakar mi ngi wax léegi kan ni moom bu yéegee euh, li nga xam ne dugg yi ak yooyu yooyu dina ko jaarale di ko jaay du mooy sax lu mat sax ñaari téeméer maanaam mil francs loolu est-ce mën naa nekk ah si sama xalaat bu gàtt de mhm. comme que wax na ko ah. te promesse la mhm. war na mën a nekk mhm. moom boo xoolee moom point yu mu tënk yëpp. ay mm. point yu am importance la. d' abord bu ñu ñëwee si affaire la vie chère instant yi Sénégal moom la ñuy dund. sonn nañu trop. si mm-hmm. dund bu metti bi. Mm-hmm. boobu mooy premier point bi. Mm-hmm. mu ñëwaat si yeneen point yi nga xam ne tamit moom. moom la sénégalais gën a soxla fu mu nekk nii mooy lan. agriculture. élevage ak pêche. su ma ñëwee si agriculture bi. il y a tellement de terres cultivables ici au Sénégal yi nga xam ne tey war nañu mun ñu xolal uh-huh. béy ba nga xam ne uh-huh. exploité ko daal ba nga xam ne yow tey Sénégal uh-huh. duñu soxla sax di jëlee bitim réew dugg suñu biir réew y a tellement de terres ñu ñëwee si wàllum élevage bi dëgg la boobu tamit kii moo ngi wax par rapport ak euh, industrialisation ñoom boo xoolee affaire si wàllum élevage bi ñoom am nañ si apport bu am importance si biir réew bi. dëgg la waaw. Mhm. comme Abdourahmane nu mu ko waxee sànq. Mhm. papam mooy jiite yooyu. Mhm. bokk na si ñu koy jiite daal. waaw si wàllum pêche bi tamit comme Abdourahmane nu mu ko waxee. war nañu gëstuwaat bu baax. biir boobu noonu war nañu gëstuwaat wàllum pêche bi. parce que tamit metti na torop torop torop torop Sénégal lu ñuy dund dafa metti dafa metti waaw. alors ñu ñëw ci suñu beneen euh, candidat di Amadou Ba nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ma nga woon diggante. Saint-Louis Kébémer ak luga ñu ñëw ci élément boobe après da daal dellusiwaat suñu plateau. mënuma ñëw ba Louga du ma rendre hommage aux femmes kenn mënul defar réew mi te boolewu leen ci le programme de jeunes deux millions d'emplois kooku dinañ ko mettre en œuvre dès le mois d'avril, c'est-à-dire dès après l'élection. boo nee diaspora ay nit ñu ubbeeku lañu ay nit ñu nangoo sonn lañu ay nit ñu nangoo ñàq lañu à travers eux je salue tous nos compatriotes vivant à l'extérieur bokk na ci li tax ñu war a ut une banque nationale muy banque bu rëy la nga xam ne bëgg nañ ko def fii ci Sénégal ñu mën ko ci def ci anam bu mucc ayib et en tout sécurité boo nekkee bitim réew yàgg fa sa passeport arrivé à expiration yenn saa yi day xaw a jafe dinaa yokk durée de validité bi mu doon passeport yoo xam ne day mel ni carte nga mën ko yor ci fukki at moo xam kayitu juddu la wala lépp bépp këyit mën ngaa toog sa kër ñu jugg ci plateforme yi am ko en tout sécurité te doo déplacé wu programme de souveraineté alimentaire mooy Sénégal war naa mën a bay di napp wala am ci jur gi loo xam ne bu ñu ko boolee senegal war naa mën a dundal boppam fii ñaari at 2024 2025 mi 2026 dootul amati doomu senegal buy dëkk foo xam ne amoo ndox amoo courant Sénégal ñi fi ëpp mooy tailleur ñi ci topp mooy ñiy létt ñi ci topp mooy pêche nappkat yi dinaa leen créer société d'assurance boo xam ni état bi moo ci njëkk cotisé def ci cinq milliards kon ci ñetti secteurs yooyu bu nekkee da nga bëgg créer emploi secteurs yooyu ngay njëkk a dooleel ci le xuusal jàll doomu njaar la suñu mbaru maa ngi nee waaw tàngay daan candidat Amadou Ba comme ni ñu ko waxee sànq rek nekkoon diggante Saint-Louis Kébémer ak Louga Abdourahmane ban jàngat ngay def ci li Amadou Ba yëkkati. waaw tout d'abord Amadou Ba moom dañ ko doon décrire comme euh, comme le candidat de la continuité en fait. Mhm. continuité mooy li Macky Sall def mu ñëw continuer ko mais boo ko déggee da gis ne moom il s'est forgé un programme pour lui-même yaa dégg. te loolu lu may rafetlu la. Mhm. mais tout pareillement comme Anta Babacar Ngom boo déggee les les mêmes problèmes ñooy ñëwaat. Mhm. agriculture pêche élevage. parce que Sénégal loolu mooy problème majeurum mhm. man je me dis Ba moom. en fait man c'est un bon profil en fait. quand je l'entends parler parce que y a dina tenir genre discours yu mel nii quoi en fait mhm. mais soo koy dégg dañuy gis ne engagement am ak sérénité am mhm. da gis ne maam li muy wax nii mhm. moom mën na ko réaliser si benn côté loolu laay parce que déjà xam na état yàgg na si liggéey PSE bi am na si fu mu si toll kon dañuy mën a jox crédit lu muy wax en fait noonu noonu laa koy mën a tënkee en fait mais je me tamit que campagne bi amoon na tuuti lu ko xawoon saltel en fait le fait que les apéristes jàppale wuñ ko woon tout au début audience bi mu am ak le président Macky Sall. kal jot nañ clarifier lu bari ba nga xamante ni gis nga sax ci biir kii bi que ne yaa ngi gis Mansour Faye mi ngi nekk à ses côtés. Mhm. kon loolu c'est une chose pour lui. Mhm. espérons tout simplement que ne lim ñuy lim ñuy wax ni bu toogee. dina ko def comme ni ñu koy waxee parce que Sénégal actuellement ils ont besoin oh, nous avons besoin mm-hmm. d'un président qui tient promesse en fait mm-hmm. parce que mënoo def campagne dañu dig loo xamante ni nit ñuy wax ni rek la ñuy xaar mm-hmm. am na tamit si waxam lu am solo lu mu wax mu ne il va créer une banque nationale. Mm-hmm. pour les immigrés. Mm-hmm. yaa dégg loolu tamit lu am solo la. parce que boo xoolee immigré yi. ñu mm-hmm. dem ci kaaw tukki ay at di yónnee xaalis Sénégal. gars yi di yàq rek xaalis boobu war nañ ko mën a ba mu am lu ñu mën a jural ñun en fait. donc da ngay gis ne kon y a un sens à propos quoi. je te donne crédit en man. parce que déjà. am xam na état. liggéey na si. Mhm. yaa dégg. Mhm. am na yar am na teggin. Mhm. xam nga te candidat la boo xamante ni daal ku neex a bëgg la en fait donte gars yi dañ ne idée impopulaire. foofu laa yem. <laughs> d'accord alors ñu ñëw ci Clarisse euh, Mantane Clarisse. ñu dégg Amadou Ba ñëw na ci wàllum ndox. ak courant est-ce que amul lu des. <coughs> parce que moom bu ñu seetloo. ñu fàttali rek moom moo fi nekkoon premier ministre. balaa renouvellement bi nga xamante ni moom mooy am ci wàllum gouvernement bi. moom nee na wàllum ndox ak électricité. Mhm. parce que depuis bi may suivre début campagne ba tey mu ngi répété waat wàllum ndox ak électricité. Mhm. que dëkk ba mu munti dem du manqué ndox du manqué électricité. Mhm. mais moom bu mu fi toogee woon nekk premier ministre est-ce loolu mu ngi ko doon xalaat. bu mu fi nekkee woon xalaatu ko woon de. mais instant yi bëgg nañu fal ko président. muy muy diggee loolu. mais j'espère que une fois que bu yéegee loolu dina ko accomplir. dama ne j'espère. Mhm. waxuma ne dina ko def de. Mhm. mais maa ngi dundee yaakaar ne peut moom bu nekkee président loolu dina ko accomplir. surtout nag li nga xam ne point bi nga xam ne saa yu ma déggee ay campagne am da siy ñëwaat. mooy lan emploi des jeunes. Mhm. jeunes yi sonn nañu Sénégal. taux de bi bëree na si dëkk bi. sonn nañu xale yi bëgg nañu xëy mënuñoo xëy loolu moo waral ñuy jël à chaque fois gaal nañu jàppale jeunes ñu xëy. bu mu doon ay promesse dong. waaw soxla nañ ñu ñëw ci keneen di Idrissa Seck di candidat parti réew mi nekkoon fële ca Ngaye Mekhe ca Thiès ñu xooli élément boobu ñu di dellu si waat. J'ai eu l'immense plaisir aujourd'hui de me rendre à Ngaye Mekhe, ville symbole de l'artisanat sénégalais, à la rencontre d'un secteur que je connais relativement bien. J'ai eu effectivement le privilège, comme ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrialisation, de m'occuper de ce secteur et de me rendre compte de la compétence et de l'immense talent des artisans sénégalais. C'est pour cela que dans le cadre du pacte que j'entends mettre en œuvre à la tête de l'État, après l'élection du 24 mars 2024, l'artisanat occupera naturellement une place de choix. Non seulement pour promouvoir les produits de notre artisanat national dans le cadre de la consommation locale, mais aussi pour encourager la commande publique en termes de mobilier, d'œuvres d'art, pour l'orienter vers notre artisanat national artisanat secteur bu ma miin la bu ma xam la artisan yi ma taseel ñoo ngi fàttaliku liggéey bu am solo bi nga xam ni directeur de l'artisanat bi ma fi tegoon di maxtar Jaxate def na ko ak ñoom loolu nag laa fas yéene wéyal ci pacte bi nga xam ni moom laa tëral comme programme incha allah bu yàlla tegee réew mi ci suñu loxo ñu jóge fa jaar ci zone des Niayes li nga xam ni mooy agriculture maraîchage nekk aussi secteur bu am importance boo xam ni danañu ci dellusi si puisque partie bu njëkk bi ci suñu campagne mooy feeñal importance bi ñu jox ñi nga xam ni ñooy sonn di góorgóorlu moo xam ñu ngi nekk ci secteur informel bi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 waaw commentaire bi mooy si njëkk def mooy Idrissa Seck dèjà déglu ko rek dafa neex parce que moom yàlla da ko may mu am kàddu quoi moom suy wax soo koy déglu da ngay xam ne kii di wax nii li muy wax xam na ko mën na ko. yaa ngi dégg loolu mooy premier aspect bi deuxième aspect bi tamit li mu njëkk a wax si lay appesantir mooy mooy l' artisanat sénégalais en fait. mi ngi wax secteur boo xamante ni wax dëgg yàlla gaa yi war nañ see xar seen tànk tubéy ndaxte Sénégal soo ay artisans yu aay lañ am. Mhm. ils sont très forts. Mhm. si boo demee Ngaye Mexe bu mu wax gars yi dañu lu ñuy defar si ay dàll si ay ceinture lu ñuy defar si wàllum der bari na benn xeetu bari boo xamante ni man gëm naa ne amuñu lu ñu war a dem jéegaani si dëkk tubaab bi. tamit doguma la ak fi nga xamante ni mooy Medina Tilène mhm. seetlu nga ne dàll boo gis mm. mën nañ la reproduire la même chose foofu tamit même chose moo fa am. ay loolu lu muy wane rek mooy que ne ñun am nañ. artisanat local bu taxaw boo xamante ni soxlawuñu uti leneen feneen léegi lu des rek mooy benn vision. Mm-hmm. boo xamante ni benn ku koy incarné day gëm ne lépp fii la ko war a di lañ ko war di defaree. Mm-hmm. di ko consommer fii maanaam ce qu'on appelle la consommation locale en fait lu ñuy xeex booba léegi. Mm-hmm. artistes yi ñoom ñëpp artisans yi loolu la ñuy xeex en fait. parce que ñoom seen i produits dafay lamb. parce produit bi dafay cher. Mhm. parce qualité la. Mhm. les gars ils acheter ce qui chinois xam ne moo gën a yomb. au détriment de ces produits locaux alors que loolu bu ñu koy def maam ñu ngi suuxat ñu ngi suuxatuñu bokk suñu économie ñu ngi koy daaneel. Mhm. li mu wax nag loolu dama ko ciy naan ah yàlla na nekk président ba def ko. ndaxte bu lu mu ko waxee nii. su dee mën na ko defee noonu. ah dina baax si artisan yi. loolu la ñuy xaar si moom. d' accord mhm. Clarisse Idrissa Seck mhm. mu doon habitué ci wàllum candidature. Mhm. élection présidentielle depuis deux mille 2007 ba léegi. doon borom parti réew mi. nekkoon fële ca Ngaye Mekhe ca Thiès. mi ngi tudd tam li nga xam ne wàllum commande publique. ak yokk euh, li nga xam ne waaw wàllum commande publique euh, ak tamit seetlu nga sànq sax moom la Abdourahmane doon wax. Mhm. dàllu euh, ngaay yeeg yooyu ban commentaire nga ci def yooyu tamit. waaw comme ni ko Abdourahmane waxee rek. Mhm. munoo dugg ngaay te newoo dàll. Mhm. waaw Sénégal war nañu commencé appliquer consommer locale bi. waaw man du ma yem si wàllum dàll muy Idrissa Seck wax. kii wàllum artisanat mi Idrissa Seck wax de. waaw. war nañu def consommer local si wàllu kii yëpp parce que ñun lu ñuy consommer bagage extérieur moo ëpp lu ñuy consommer li nga xam ne moom la ñuy defaree fii Sénégal. Mhm. waaw ma jël benn exemple ndaw. Mhm. par rapport ak euh, soble bi. waaw xoolal soble bi bu génnee du am ñu koy jënd. du am soble Sénégal bu génnee du am ñu koy jënd. Mhm. ñi ngi dañuy préférer bi nga xam ne moom la ñuy jëlee à l'extérieur que soble bi nga xam ne moom la ñu béyee fii Sénégal. de même kat dàll yi comme ni nga ko waxee boo demee Tilène da ngay gis macha allah artisan yaa ngi foofu defar dàll yu baax. Mm-hmm. ngaay ba may romb ngaay bu may dem euh, Richard Toll romb naa ngaay li ma fa gis non macha allah. ce son des artistes xam ne ña koy def sa jigéen ñi. Ah, ah. Mm-hmm. Ah. mais Sénégal mooy loolu. Mm-hmm. dañu dem jëli feneen. bàyyi li nga xam ne moo nekk fii si dëkk bi. loolu tam war nañ si bàyyi xel bu baax même sax Clarisse. mais meuble yi sax importé. tout est ma ne la tout est importé. Mm-hmm. il est temps nag que ñu focaliser aussi affaire consommer local bi ñu xool nan la suñu réew di jëmee kanam. Mm-hmm. si wàllum consommer local bi si secteur yooyu tamit war nañu mën a jox jeunes yi. ay mm-hmm. emploi foofu. waaw wàllum agriculture mun nga jël ay jeunes nga centré leen ñu dem di béy. ah mais tamit tamit dañu waxante dëgg aussi ah. am na jeunes yi nga xam ne dañuy xeeb liggéey tey ban jeune ngay jël tey benn clarisse nga ñëw nga ne ko kañ dem village nga xam nga du ko nangu. loolu tamit il faut ñu bàyyi si xel am naa du si contexte boobu la ñu nekk waaw source de richesse sax ma si mais mm-hmm. il fallait que mu souligner ko aussi mm-hmm. waaw jeunes yi dañ si war a bàyyi xel aussi mm-hmm. waaw d'accord ñu ñëw ci keneen muy candidat euh, Kama 2024 moom mooy Boubacar Camara ma nga woon moom itamit ca Thiès dañu dugg Thiès démb ci guddi waxtaan ak euh, face au Thiessois ay journalistes taskatu xabaar ñu laaj ñu suñu programme ci Thiès ñu waxtaanee ko wax ni ñu buggee jël capitalu Sénégal capital administration bi indi ko cees wax liñ fi war a def ci wàllu xarañu loxo artisanat wax liñ fi def ci wàllu foncier bi suuf si mbéy mi nuñ koy soxalee ak industrie bi ak ni ñuy fexee ba Thiès raay bi dellu si tey li ñu mun a jàpp mooy Sénégal ah, li tubaab di wax désir de changement maanaam bëgg soppi réew mi moom moo li nga xam ne ñëpp ànd nañ ci ñëpp yit ànd nañu ci nii waruñu ko soppi n'importe comment beneen bi dem nañu seeti association des anciens conducteurs de de train ñu waxtaanee affaire u raay bi yëpp nuñ koy demee gis situation bi nga xam ne bii moom la raay bi euh, nekk actuellement négligé totalement alors que Sénégal am na Falémé am plus de six cent cinquante millions ay tonnes fer am gaz nga xam ne dara desul lu dul def chemin de fer boo xam ne bii dina wër Sénégal yëpp chemin de fer boobu ñun ci suñu programme am nañu mille milliards ñeenti junni milliards francs CFA yoo xam ne infrastructure routière yeeg ferroviaire yeeg yëpp yi jaar ci géej gi yëpp ci lañ koy defar loolu dalal nañ ki seen xel wax nañ leen niñ koy doxee leneen li ñu marqué mooy affaire retraité Sénégal ku fi xas ba jógee liggéey liggéey ba pare retraité wax dëgg yàlla da ngay tombé ci situation boo xam ne bii lu doy waar la loolu nag wane nañu ne Sénégal retraité moom moom moom presque euh, situation la boo xam ne bii kenn yàkkamtu ko def am na réew yoo xam ne yi bu ñu leen buggee yokkal seen retraite sax dañuy grève pour ñu bañ ko def waaye Sénégal moom wax dëgg yàlla euh, dem nañu ba nga xam ne euh, retraite moom ñëpp xam ne kii presque musiba la léegi nag liñ ci fas yéene def mooy dinañ am minimum Euh, vieillesse bu ñu leen di jox loo xam ne lii day dëppoog euh, benn montant boo xam ne universellement dañ koy calculer xam ne lii dañ leen koy dencal dinañ am nag beneen fonds de solidarité mbel boo xam ne ci suñu ressource naturelle lañ koy jëlee ku xas ba retraité à partir de 64 ans di nga am 150 000 par mois calculer nañ ko muy fanweeri junni yoo xam ne yii yow yaa koy moomal sa bopp boo nekkee de nationalité sénégalaise dëkk ci réew mi vraiment loolu dañ la ko fagul donc Thiès tey wan nañu ne problème mu Sénégal góom yi nga xam ne moo nekk Sénégal eh, mu ngi mu ngi Cees góomu ndóol góomu ñàkk njàng góomu ñàkk xëy góomu ñàkk karange mu doon euh, président Boubacar Camara bu coalition Kama 2024 Abdourahmane ban jàngat ngay def ci li mu wax. ah tout d'abord damay wax ne Boubacar Camara moom. Mhm. lu mu gis yëpp vision am yëpp mu ngi ko bind ci benn livre bu tudd construire le Sénégal du futur moom lan la gëm mooy un changement de cap la gëm moom loolu la moom loolu la woote neen dañu war a soppi yoon bu ñu jël yaa ngi dégg mhm. ci kaw loolu mu ne Thiès la bëgg a def capitale du Sénégal mhm. vision am la mhm. dina laaj ay moyen dina laaj liggéey bu yaatu mais wax bi lu mu si wax lu ci ëpp solo mooy tekki tekkilaat les les chemins de fer. parce que boo xoolee gis nga chemin de fer yi maanaam yoon la woon boo xamante ne ça créé de l' économie. yoon yu mu doon jaar yëpp dafa doon créer économie. da doon am ay temps Dakar Mali. chemin de fer da doon daw Dakar Mali. jamono bu muy daw Dakar Mali ça avait créé benn économie bu am solo. pour jigéen yeeg góor yi nga xamante ni ñoo dëkk ci alentouru train bi. Mhm. dañ doon indi seen ay marchandises ko fa jaay ça créé de l' da doon tax tamit. maanaam produit yu jógee Mali ñëw Sénégal di ñëw di maam di dugg d'une manière plus facile. Mhm. que actuellement avec les comment de je les gros porteurs mais camions yi a mhm. mhm. en fait Boubacar Camara moom man lu may tënkee ci wax bi. mooy que c'est un visionnaire quoi noonu laa ko mën waxee. waaye il suffit pas simplement d'avoir une vision pour l'accomplir en fait. foofu laay tënkee. d'accord Clarisse dugg na def na ay promesses euh, quatre mille milliards. tudd na tamit wàllum ñëwaat na tamit encore une fois ci wàllum chemin d'affaires bi. Mm-hmm. yow loo xalaat ci loolu. man si li mu wax lépp man daal accomplissement bi daal. Mm-hmm. mooy sama préoccupation. waaw wax bi neex na trop mais nañuy mm-hmm. accomplir tamit. une fois que nga yéeg si nguur mi da ngay fàtte yow euh, promesse yi nga tëniroon yépp te loolu tamit war nañ si bàyyi xel bu baax. waaw moom nee na waxu ki nu mu tudd réhabilitation chemin de fer bi. am na solo trop mais. mu doon ay wax daal mu doon ay wax nii nii fala fala quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw. Euh, ñu mujjee ak euh, waa coalition euh, Diomaye président ña nga woon fële ca diggante Sicap Mbao et environ ñu ñëw ci ak waa régie. Diomaye premier tour. Diomaye premier tour. Diomaye président. coalition Diomaye président alors euh, Abdourahmane Diomaye président doon def euh, li ñuy mën a wax démonstration de force. waaw lii moom mooy non comment. <laughs> démonstration de force. Mhm. kenn mënu si wax. xanaa ma rek. après la ñu mën a gis ni dañu naan kii mooy la candidat du peuple xanaa. <laughs> waaw mais c'est tout à logique Diomaye Faye moom. Uh-huh. mën naa wax ne. mooy Sonko comme ni ko gars yi waxee. Mhm. parce que loolu lañ mooy seen slogan en fait. waaw mu coïncide sax ak seen sortie euh, bi génnuk seen sortie voilà. ngi noonu parce tamit mhm. n'a aucun sens. day mhm. nekk ay say bu dee dafa dañu war a xool li nga xamante ni c'est légal wala juste. mooy que bi nga xamante ay naataangoom ñu ngi dem di wax di di waxtaan ak population yi war nañ ko mën a moom it bàyyi. lu Macky Sall def noonu si benn côté ñu ngi koy décrier mais tamit am na si benn côté boo xamante est libre les élections yi beneen tournure lay am. le candidat du peuple est là man de noonu laa ko tuddee le candidat du peuple. <laughs> espérons que. Mhm. peuple bi nekk seen ginnaaw duñ mhm. leen trahir en fait espérons que yaakaar bi ndaw yi am si ñoom dinañ ko mhm. matale ndax fii wax ji yëpp loolu en fait le projet de Sonko ñëpp xam nañ ko léegi lan moo des ndax buñ nekkee pouvoir dinañ ko appliquer comme nit ñu ko diggee depuis des années de cela yaa ngi dégg ndaw ñi am nañ yaakaar ci ñu gis rek ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ak Diomaye Faye démb génne nañ leen prison c'est vrai que ne élection bi euh, du moins campagne bi commencé na def na léegi ay fan. Mhm. noo jàngatee ah, li nga xam ne mooy euh, seen libération bi nga xam ne am na démb ci guddi. Mhm. di ko rafetlu bu baax a baax. Mhm. man mobilisation bi ma gis. Euh, li may question bi may njëkk a mooy est ñi topp seen ginnaaw moitié bi ñoom dañ dem si urne yi voté. Mhm. loolu la aussi. Mhm. parce que neex na torop nga ñëw ma riirandoo bi daw si mbedd mais jour le 24 mars est yow di dem voté. Mhm. loolu la aussi. waaw moom la woowee candidat du peuple ah ñu ngi dundee yaakaar par rapport ak seen programme que bu ñu yéegee une fois bu ñu yéegee aussi. que dinañu mën a accomplir li nga xam ne moom la yàgg dig waaw. fii que moom Sonko vu que instant essentiel yi. Mhm. d'accord moo nekkoon troisième. Mhm. kon bu ñu amee yaakaar ne ñoom coalition dina yéeg deux mille vingt quatre bi na accomplir li nga xam ne mooy programme am. parce que nit ñi yaakaar nañ ci moom bu baax a baax a baax. Mhm. chers internautes lii leen indi loon tey ci seen émission actu campagne uh-huh. di leen ñaan rek ngeen suivre seen chaîne Evidence TV uh-huh. di aimer ak di partager suñuy contenu on vous donne rendez-vous incha allah rabbi lundi prochain pour un autre euh, numéro du moins sur Evidence TV uh-huh.